ñoo ngi del si leen nuyu di leen ziyaara di leen bala àq di jiital ci nuyu ak ziyaari ak ñaani Cheikh Mouhamadul Muntaxa abtaalallahu baqaahu wa ayadahu ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp radiyallahu anhu ak mboolem kilifa diine yëpp yal na yàlla saafara way tawat yi yal yàlla yërëm way dawlu yi ñi fi des ne yàlla guddal suñu fan tënk di siraatal mustaqiim barke suñu dund te yàlla doolu ñu kàttan ak wér doolu ñu sutura ak mucc yàlla may ñu koor guñ nangu defal ñu sutura so sax dàkk di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ziyaarewaat bu baax ci ànd bi ak mm, topp gi niñ koy baaxoo def rek ci waxtu bis bu nekk ci waxtu wi di émission bi ñu tuddee jataayu koor ñu ciy baaxoo ànd ak yéen bis bu nekk ci juróom waxtu jotee di ci indi rek ay ndénkaan ak i njàngale yoo xam ni Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu moo ko doon jàngale mu nekk yu am solo yoo xam ni yaakaar naa fi jot a jaar ñi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel tey seetantal ay mbind yu ama am solo la ndax mbindam ak njàngale moo noonu tey nag bi ñuy tijji bi ñuy wax nii sëriñ bi mi ngi ko jëmale woon kenn ci njabootam waaye kenn ci ay doomi baayam di rakkam di taalibeem bi maam Cheikh Anta Mbacke radiyallahu anhu borom salaam mel ni bi koy bind moom sëriñ bi nag xëy na bu nekkutoon ci géej gi tim ma nga woon <coughs> waaye ay addiya daal yoo xam ni maam Cheikh Anta moo ko yónnee woon sëriñ bi ci la ko sëriñ bi di sant ak gërëm nag di ko dénkaat bu baax a baax di ko soñaat bu baax a baax di ko fàttali li nga xam ni moo leen boole. Eh, tarjumaa gi nag dafa xaw a gudd moo tax xam naa dañuy tëb rek ñëw ci ndénkaan yi fi mu commencé waaye tarjumaa ngi nag ci la nuyoo bi aju yëpp ci la koy waxee sax ni ko. amma baadu faqad warada alayna abu bakrin maha ma warada bihi min alhadiya ni ko abu bakar mi nga xam ne moom nga joxoon addiye ji maanaam li nga ko joxoon egsi na ci ñun kon ndaw li maam Seex Anta yónni woon abu bakar a tudd ginnaaw nu yooyu sell yooyu ak ñaan yooyu yëpp na bi ko sëriñ bi boolee euh, da koy soññ di ko wax ni laa tatlabu laa tatlubu siwaari dalillahi muttabiina li rasulillahi ni ko bu leen sàkku lenn lenn lu dul ngërëmal yàlla te ngeen di topp sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kunu ibadallahi bila taxaasudin wala xudwaani ni ko nekk ay jaami yàlla booloo boole seen bopp bu leen iñaanante te bu leen noonoo nekk leen ay jaami yàlla dégg nekk ñu booloo nekk ay mbokk te bañ di noon bañ di noonoo man xabba lil aqi la si yuhibbu li nafsihi radiya anhu rabbu ni ko képp koo xam ni soppaloo wala bëggaloo sa bopp bëggaloo sa mbokk li nga bëggal sa bopp yàlla du la gërëm képp koo xam ni bëggaloo sa mbokk li nga bëggal sa bopp yàlla du la gërëm te loolu na ko ni ko alimtumul xaqa fa laazimuhu wa taraw xatti fa akrimuhu ni ko ginnaaw xam ngeen ak dëgg na ngeen ko taqoo ca sax ci te bu ngeen gisee sama mbind mi na ngeen ko teral ndax li tax li wajhi rabbi katabtu daaiya lakum wa naasixan li ahdin raaxiya dama ko bind ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala di woo dileen leen laabire ak di sàmm wóllëre gi nga xam ni moo dox sama diggante ak yéen yaa ayyuhal kabiru yaa muhammadu kun li si xaarika maan fa taxmadu dañ ni ko yow sëriñ Mamoor Jaara nag na nga taxaw say rak waaw yow mi nga xam yaa leen mag yaa fi mag na nga taxaw baax say rak soo ko defee dinañ la sant lool ani hadakum allahu siraat almustaqim wa ankum nafa laina wa saqim yal na leen yàlla jubal teg leen ci siraatal mustaqim mooy yoonu jub te yàlla dàqal leen eh, maanaam saytaane ak ràggi xol mu mel ni dénkaan bi jeexut waaye dañoo egsi fi ñu war a yekkitee jataay bi incha allah te lii ñu jot a wax rek wax di yàlla ni ñu ko waxee sànq kuy settantal mën nga cee dénk lu bëree bëree bëree bëree bëri kon di leen dox di dajale xam naa ba suba ak jàmm ci waxtu wi wasalaamaaleykum wa rahmatullah leen fàttali rek ba tey ni nga ko waxee woon rek ku wax ji ci fii tamit mën nga ñëw suivre bu baax ci sun seen youtube boobu ñuy wax Ndayane Vision ND Vision par facebook wala par youtube wasalaamaaleykum wa rahmatullah